asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki seetaan axiru zaman fii ci Seneweb TV noo ngi dellu siwaat di àndaat ak yéen ci axiru zaman di émission bi dikk ci axiru zaman di waxtaane mbirum axiru zaman émission bi ñu mujj a def ñu ngi doon waxtaanee ci góor ñi nga xam ni dañuy jigéen jigéenlu di phénomène boo xam ni tasaaroo na ci réew mi ba mu yeggoon ci am ku siiw ku ndaw ñi bàyyi xel mu doon yor saag waaye sant yàlla émission ba am na njëriñ wax jeñ ca wax tamit am na njariñ ba fii mu toll ndax bi coow li jógee dafa waxoon ne du bàyyi saagam tuddee saag ba cartable waaye bi mu amee ay nit yu xayadi yu nekk bitim réew di ko jéem a défendre ba la ci kilifa gu tedd ci réew mi nit ñëpp jóg moo xam ne du ko jural jàmm ci la dem xotti saagam moom mi ne woon du bàyyi saagam mu jëna ba saag ba léegi nag ñu ngi koy nek donte gisaan nañ ko mu dem ci RFI di lay layam ba ñu laaj ko question mu wax ne estilam am du ko changé waaw sa estil moom boo ko changé wul tamit saagi moom nag ñu ci dimbale rek loolu lañ ñu waxtane ci émission bi wessu waye tay mbokk yi. li ñuy waxtaanee dafay nekk loo xam ne day laal wàllu jikko di message boo xam ne sunu bopp lañ koy njëkk adressé soog di ko adressé umma bi yépp muy ñu bàyyi war xel sunuy jikko rawatina mbir yoo xam ne yu doy waar la léegi yu tasaaroo ci àdduna tasaaroo tamit ci réew mi mooy doomu aadama yoo xam ne dañoo mën a dige lool te lu ñu digee du deppok lañuy def buñu ko waxé nak ma samba momuko momoko, ma demba momuko paté momuko mor momuko njaga momuko matar momuko mais ñepp ko moy delu ci wat fatali sunu bop ci sunuy jikko yu nu defarat, rawatina sunu kaddu yu nu war samat, dafa am lu luñ ko sas am lu luñ ko sant am lu mu sañ am lu mu sañul liñ la santee ngay julli waxtu yu juróom ñu sant la ngay woor weeru koor ñu sant la ngay génne azaka ñu sant la ngay aji màkka dafa bokk ci biir yiñ la sant mooy ngay matal kóllëre te mu nekk lu tasaaroo léegi lu ñu sant jullit la te léegi ak raaf ci société bi ñaata nit ñooy wore ñaata nit ñooy ànd ak nit ba xëy jekku jekkali kanu àndal wacc ko fa dem ko am nga ñëw ànd ak moom wan ko ne yaa fi wan ko ne yow laa gëm wan ko ne yow laa àndal lu waral gëm geeg yaa fi ne ak yow laa àndal mooy li mu yor bés bu ko ñàkkee nga dem bàyyi ko loolu ci aaxiru zaman mbokk yi ak a tasaaroo ñaata nit lañu ñu ñaata nit la ñu wor te ki ko def ko def léeg-léeg mbokk jullitam la borom pas-pas la ne moom waaye ba muy ñëw di ànd ak moom ba muy nekk ak moom wut a jekk a tax waaye bi mu demee ba jekk te ci jekkam nga la jekkee ba noppi jéem koo jekkali dem ba ko fa loolu nag dem na ba yegg foo xam ne léegi lu doy waar la bu continuer muy am ci ñàkk kóllëre googu noonu la di am dana dem ba yóbbee ñu kenn dootul am xaritu fukki at kenn dootul sëyëg boroom këram fukki at wala yor soxnaam fukki at bu ma tuddee fukki at bari na ci ñenn ñi mën a wor ak ñi mën a trahir moo tax ma ne du ñu ànd lu mat fukki at bu nu woyee nii ñu nekkee te dañoo war a dëpp nag jullit dafa war a sàmm kóllëre koo àndal mu am nga goreel bu ñàkkee àndal ak moom waaye koo àndal tey mi ngi yor mu ñàkk nga ba ko fa seeti ku yor keneen ki yor a war a am fayda bu la yëgee ne bu yëgee ne danga ngaa bàyyi ki ñàkkoon ñëw ci moom mu tëjal lay buntam ndax ku am juróom-ñeent xarit bàyyi ko xëy na la yow lay def fukkeel daa jekkagul rek bés bu jekk bés bu jekkee def la fukkeel ba muy bàyyi loolu lenn la ci jikko yi nga xam ne war nañ koo xoolaat muy waraate gi kenn ku nekk am na ku la jege woon ku la xamal lépp ku sësoon ci yow mais tey lu leen tàqale ñàkk lu leen tàqale feebar lu leen tàqale mooy ña la waroon waratuñ la la nga amoon amatoo ko moo tax mu bàyyi la seeti keneen ana ngor ana ngor nañ ko dekkal beneen bi mooy dëkkee digee te doo def dara danga gis Omar koo xam ni dafa mel ni daf ko neex daal fu mu tollu day wut lu neex ka mu nekkal wala ka muy waxal balaa noppi buy wax ak yow wala balaa jug bu toogee yow faaw mu dig la te du ca def dara bu demee nag ba am réew ay nit ku nu àndal tey suba ñu bala lu ñu digee du nu ko def réew moomu tànk yam yi doxee fa mu jëm baaxul sunu borom nee na yaa ayyuha alladina amanu li ma taquluuna maa laa tafaaluun yàlla Eh, yéen ñi gëm yàlla kon ku gëmul bokkoo ñi gëm la yàllay waxal ne lan moo tax ngeen di wax lu ngeen dul def li ma taquluuna maa laa tafaaluun lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def yow yaa ngi digee li ngay digee mu wóor la ne leeru la ne man nga ko manoo ko dang ko defam doo ko def waaye digee la neex ngay digee nañ ko moytu nañ ko dawandiku ndax yàlla nee na kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun rëy na lool am sàññi fa yàlla ngeen di wax lu ngeen dul def amir bun rabia nee na dama nekk ndaw rasulullah yi ñëw suñ kër sersinu nee na bi mu dugg see ma génn dem di foy nee na sama yaay woo ma ne ma kaay ma jox la yenent bi dégg ko ne ko bu ñëwee loo koy jox mu ne ko tàndarma ji sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax xam nga ne buñ ñëwoon te joxoo ko tàndarma ñu bindal la bàkkaar ci xolal lu ndaw loolu lu ñuy foye tey ñaataay woo seen doom kaay ma jox la sa doom ñëw nga ne ko dama la doon nax te yeneen bi nee na képp ku ko def ñu bindal la bàkkaar tey ñaata góor Omar ñoo ànd ak jigéen gëmloo ko ne ko yaa fi ne gëmloo ko ne ko yow laay takk ndaw sa jàpp sa kàddu doyloo ko ku ñëw mu dàq la ku ko seet si mu ne la am na ku may bëgg ndekete yow la ngay wax dara nga ci gëmul dajale nga fukki moroomam kenn ku nekk wax nga ko lu mel ne la nga wax ndaw sa waaye li may faral di wax gaa ñi léeg-léeg dañuy am ndaw soo xam ne kastoor la tudd am ndaw soo xam ne géejawaay la tudd am ndaw soo xam ne kàmbareel la tudd numéro ku ñu jël turu quartier ba lañ cay def ngir bañ nañoo weeru bañ nañoo nekk Cambérène mu xam ne Kastoor a leen di woo te nekk turu jigéen moo tax ñu tudd Kastoor ñaata jigéen ñoo am déception xëy rek ñu ne diw dañ koy may soxna ngeen ne diw man ñu ne diw sàngam diw mi nga doon bëgganteel dàq sa dàq juróomi sa juróomi nawle yu ñëw di la bëgg ngir diw diw moomu xëy trahir la loolu lenn la ci biir société bi te mi ngi am. ñaata nit ñoo jël nit gëmloo ko ne ko kaay ci sama bërëbu liggéeyukaay nga liggéeyal ma def stage bu matee six mois ma embauché la six mois ya mat nga wokk ndong léeg nga tàppaas ko ñëwee nga yokkalaat ko danaa la jël ba xëy dàq ko ñaata la ci société bi léegi nag mu dem ba ñuy yóbbu ci niveau boo xam ne dañuy dem naan léegi aayatul wax mu dëñ daal léegi aayatul mais aka ay aka garaaw imaam Malik ci laay ji la sukkandiku ne képp ku dige benn dig ka nga dig nga feddalil ko lang ko dig mu ne faratala ngir nga def ko imaam Malik ne boo waxee góor ne ko takkal soxna bis bu nekk maa la yor yoral dépense mu takk soxna ngir li nga ko wax bu bis jotee te joxoo ko dépense ba danañ la bindal bàkkaar bis boo rate bàkkaar ba euh, dépense ba ñu bindal la ko bàkkaar takkal ma yoral la dépense man nga koo jox dépense joxoo ko dépense ñu bindal la bàkkaar kon nit ki nekk jullit na sàmm kóllëre kum àndal mu am nañu ànd bu ñàkkee nañu ànd bu neexee ñu ànd bu naqaree nañu ànd waaye mënoo ànd ak nit tey muy suukar mu xëy doon kaani nga daw ana ngor ana jom ana julliti waaye tamit mënoo dikkee dëkkee digee te loo digee doo ko def ku la mënti wax du jikkoy jullit yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dane mandargay naafeq ñett la su waxtaanee fenn ida xadasa kadaba bu joxee rendez-vous fausé ko waaye bés bu diggee du ko def mu ne loolu bokk na ci mandargay naafeq bu diggee du ko def bu joxee rendez-vous fausé bu waxtaanee fenn kon nañu xoolaat sunu bopp ak sunuy doxalin li may jeexalee mooy dafa am ben goor Omar ci all ba mu nekk bay wax ji xoromu waye dana am lu ci politiciens yi jangé ak ñu mel ni ak ñun ñëpp bañ bañ ño adressé ah diw de waxam jarul a sa dom xam nga lélé Omar nga dégg kaddu gog ci société bi diwa wax ñu na ah, diw de waxam jarul a say dom ah mom dé xam nga nit bu démé ba légui sa wax safatul sukar safatul khorom safatul kani ndax lo wax ñu ne diwa waxoon na ko fii de nangam ak nangam lu garaaw la ñu ne góor gi dafa nekk di bay ci tool yi ba mu yàgg am benn convoi bu romb accident am mu ñëw gis ñu takk ay drapeau mu xam ne politiciens lañ ñenn ñu naan ko góor gi xettali ma dimbale ma génnee ma mu jàpp leen di génnee ndànk-ndànk ci oto yi ñii faatu nañ ñii blessé góor ga dem jël euh, peelam di gas kàmbu gas kàmbam gu rëy jàpp ña faatu dugal ca biir ña nga xam ne ñoo sonn. mu jàpp di watat di xëcc ñi naan ko góor gi bu ma suul deewu ma mu naan def leen dànk rek nee nañ mu jël ñëpp suul leen fekk am na ñu jotoon a woo sappoor pour mu ñëw pour war a xeetali si ñenn ñi mais biñ ñëwee gis ay xottu oto kese ñu seen góor gi dem ci moom ne ko mais fii accident bi fi amoon ana nit ñi fi nekkoon mu ne suul naa ñëpp ñu ne ko mais amul kenn sax ku ci doon dund mu ne waaw ah am na de ñu doon wax ne. deewunu waaye damaa tegoon ne waxu politicien la rek yàgg nañ koo nax ba mu gëm ne politicien yi luñ la waxati ba dañ buñ ne deewunu sax dañ lay nax dee nañu xam nga kuy wax ne la dee naa gëmoo ne deewuma gëmoo ne dee dee na da nax nañ ci bàyyi xel buñ ne politiciens yi mooy commerçant yi ñaata wax lañ lay wax ci marchandise. ñaata wax lañu lay wax ci lujum ci nangam ak nangam te loola dëñ ñaata nit tey digee tey am na ñoo xam ne lañu leen dig yëpp buñ ko defoon ñooy gën a riche ñëpp te kat léeg kooka ma nga naan waaw diw wala diw di sikkal koo xam ne ma nga ko dig te defu ko te moom lu mu diggee du ko def mais nañ ko moytandiku gor ca wax ja wala fa ko wax gor ca wax ja wala fa ko wax nit dafa sàmm kàddoom nañuy sàmm sunu kàddu waaye lii di dox bu continuer ndaw ñi ñëw ëllëg kan mooy doon seen royukaay ko àndal mu ñàkk nga xëy bàyyi ko ko jëflanteel wor ko ko dig nax ko ba kañ jikkoy aaxiru zamaan la nag yàlla ko yàlla raxas ci sunu société ba mu set wecc lii lañu waxoon nañ leen ko indil tey wanuñ leen woo vidéo wanuñ leen i audio waxtaan la woo xam ne dañ ko doon adressé direct sunu bopp ak ñi nuy seetaan di wax ne nañu defaraat jikko yi ngallaawaay nañu defaraat jikko yi ngallaawaay nañu defaraat jikko yi di sàmm sunu kàddu di am kóllëre am jom am ngor c'est important. jërë ngeen jëf ci seetaan bi ba beneen émission axiru zaman ci weneen waxtaan wasalaam.